bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. kaddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo juróom-ñeenti waxtu nag moo jot ci suba gi ñu ànd dal jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nak bokk na ci projet réhabilitation mairie bu ak Kaolack bi maanaam daal defaraat ko jagalaat ko ba mu dëppoo ak yoon daal nañu koy lancé ni ki démb nag lañu ko daal di xamle ci ab point de presse bu kilifa yi doon amal projet boobee nag bu ñu sukkandikoo ci may ngom mi nga xamee ne moom la ñu dénk wàllum voirie ma ngay xamle ne téeméeri million ci sunu ay koppar te it nag loolee dina mën a noppi rek fileek ñett ci ay weer ci jamono jooju itam nag jàpp leen ne ci lu soxal wàllum tàggat yaram gi fii ci diwaan bi lu tolloo ko juróom ci ay terrain municipal daañu ko moderniser méngale ko ak jamono ba ndaw ñi itam nag mën cee gën a gis seen ak bopp terrain yooye nak benn bu ci nekk itam daañ ca dugal rek weeri million ci sunu ay koppar gannaaw ñetti fanu gréew ya ñu xàpp ci woon mu war a jeex sax ni ki itam bànqaas bi faree fii ci Kaolack ak ca Ndofane ñoom nag ña ngay owaat rek nguur ak Sénégal gi ngir itam mu daal di wàccoo kii ah, digeem ah, te bàyyi nag kumba am nday ak kumba amul nday bi district bu Ndofane ñoom ab quartier général la ñu doon amal ca diwaanu Koutal district sanitaire bu Kaolack itam nag noonu ñoom nag sage femme ya nga xamee ne ñoo bokkoon ca ndaje moomee jaare nañ ca rek daal di jàppal tànk ah, seen ñeenti naataango ya nga xamee ne caabi da leen féete ginnaaw ca diwaanu Louga daje gi itam syndicat pharmacien privé yi nga xamee faree ci kaw Kaolack Fatick ak Kaffrine ñoom itamit niki tey jii daañu amal rek gréewu xaaju journée maanaam daal gréewu demi journée lu ni mel daañu ko yaatal ci njëlbeenu xibaar yi reportage yu koor gi nag niki tey jii ma ngay waxtaanee rek wàllum diine ji influence ak di nga tante bi ñuy faral di gis nag ci wàllum tarixa yi di ko jaarale ci li nga xamee ni moo di média bi ak réseaux sociaux yi lu ni mel daañu ca dégg Alioune Badara Diop bu li lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram yóbbalu koor géegu Saaz Mouhamed Sow euh, toftal ca kooru Gaye ak Baara Diop jeexale ko li ci yéen i yi kon ponk yaa ngoog bu bàkk bi daanoo ñu yàttal. Le journal Ngoné mu nekk ci euh, kaddu gi euh, fego ceek euh, Codou Seck madame Keneme kaddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo dal leen nag jàmm ci xibaar yi dañu koy dooree nag ak wàllum santé bi pënd bi nag ba jamono ji rek wureegul ci coowal fatuk astu soxna ma ñàkkoon bakkanam ci diwaanu Louga bu dee nag fii ci diwaanu Kaolack bi sage-femme yi nag ni ki démb rek jaaree ko ci ab quartier général bu district sanitaire bu Kaolack bi doon amal ñoom nag daal dinañuy wane rek seenu ko njàppale jëmee ci seen. naataango yooyee nga xamee ne caabi euh, daf leen euh, féete euh, ginnaaw nee nañu nag ñoom kuy sonn rek ñoom ngay dimbale te moo ne day kenn protégé wu leen Cheikh Ababacar Dieng. ñeenti sages-femmes yi ñu yóbbu Ndungu Sine ci Louga am na ñu jàppandalu sages-femmes yi nekkee ci district sanitaire bu Kasnack Kaolack ba noppi nag dajee ci seen quartier général ñu ne yëfi daal moom bëgg nañ mu gën a leer ñu màjjeeju sage-femme la nekkit membre ci ànd gësëm su section bu Kasnack. bi ki nga xamante ne mooy togg ceeb bu neex chaque jour mën naa juum benn jour ceeb sa forom bu boobaa nañ jàpp ni dafa juum dégg nga te fii sa mun ñu fee waxu ko juum ndax li leer ba leer mooy ministre bi permettre ñu benn yoon ñu xam mbir mi nu mu demee ndax tey jii bëreet ñu ne ki licencié nañ directeur d'hôpital bi gynécologue bi kenn dégg ko jël sage femme ya tëj kenn topp yoon bi nga xamante ne ci la femme bi jóge këram bay yegsi ci hôpital bi donc loolu lu jaral leerlu la parce que tey jii boo nee ci la ñu basé wu nan lañ ko defee a basé suñu camarade tëj leen teguñu ko ci yoon kon foofu mënuñu wax ne juumte am na fa parce leerut mbir mi lañ bëgg nag ñu leeral ko ba mu leer naañ balaa ñuy jàpp ay nit di leen di tëj parce ñoom dañoo nekk seen droit nekk seen devoir doon liggéey liggéey bu rafet ci askan bi nit nag doon liggéey liggéey bu rafet ba benn jour rek ñu jàppale ne la ràpp ci biir kaso gi ku juum ñu tëj la ku wax ñu tëj la ku xoole ñu tëj la boo jénnee sa buntu kër sax ñu tolloo diggante ngir ñu mucc naqar rek la ñu feesee ñu ne jafe-jafe yu bëri la dund yoo xam ne dañu ko noppi waale woon rek waaye fi nekk nag jot na nit ñi xam ne ñoo gën a sonn kuy sonn. ñu jàpp suñu collègue yi nga xamante ñoo nekk Sédhiou di leen di agressé di leen di jàmpaaka di leen di fekk seen kër yi di leen di violé te population bi kenn waxut askan bi kenn waxut jàppalewuñ ñu ñu tàmbale ci grève boobu noonu di bëgg dugg ci biir askan bi ñun waxtaan a comprendre ñu suñuy souci liñ ñu démarré jékki-jékki rek état bi xàcc rek dóor dóor gu mel ne nag mu mel ni comme si daf ñu bëgg a jaxase population bi te ñun pourtant am nañu loo xamante moo ñu gën a métti ñu doon ko dund dañuy sooxaale ay jàngoro de liggéey te du ci wéyee seen sago ànd git nag bu njumte amee tuuti rek ñu yàq seen der ba maara day taali lii nag ñu ne xam nañu ne nguur gi daf leen a bëgg a toroxal te payoor gi sax nag demeewul noonu sage-femme bi nga xamante ne tey jii dafay nekk en état de grossesse pour mère enfant bi jénn ak jàmm ci biir maternité bi far moom mu def avortement loolu benn sage ba nga xamante ne du jël congé du jël dara topp maladie topp ci salle d'accouchement yi ba jour bi nga xamante ne day a nit ki far moom ci boppam mu accouché ci biir salle ci maternité bi loolu muy deux sage-femme bi yëpp am nañ sciatique ñëpp am nañu lombalgie di sëgg di siggi jël ñu sànni ci àll bi motivé wuñ ñu fay lu ko jar ba pare ñu bëgg ñoo jàpp duñu toroxal lii nag dafa dugg ci biir ñetti fan yi grève bi bi ñuy wax ànd mu ngi koy amal yokku ci tey bi nga xam boutique yiy jaay garab maanaam pharmacie yi dañuy grève ba ñetti waxtu mu mel ni kon mbirum santé mi jamono ji gàllu góose na gàllu góose na Cheikh Babacar Dieng ñoom nag sage femme ya ba tey nee nañu nag def nañu dànk rek maanaam daal defub say ngir àndandoo ci xeex bi nee nañu itam nag seenuk liggéey métti na amuñu kaaraange boole koog ne itam ne jëwrin ba leen jaboote di Abdoulaye Diouf Sarr moom nag daf leen a jàllax askan wi ba noppi itam di leen jaxaseeg ñoom Nima Diédhiou ak Cheikh Babacar Dieng mu doon mobilisation bu fort sage femme yëpp ànd ci prestataires yëpp ànd ci paramédicaux yëpp tamit ànd ci parce que di naqarlu loo xamante moom lañu teg suñu collègues yi nga xamante ñoo nekk Louga mu metti ñu lool loolu tax journée bi il fallait que mu demee nii pour que population mën a ñu doom yi fu toll ne amuñu éducation da nekk fi tey bu subaa ñu gàddu la sandi la feneen sa doom amul éducation de base toppatoowuñu comme il faut ba par bëgg ñoo toroxal ci biir askan bi ba par population metti parce que tey jii l' état est en train de en mal avec la population mu ngi jaxase population bi jamono juñ toll nii ñu ngi koy wax ci réseaux sociaux yi di ko wax ci télé yi di ko wax fépp fu mu mënta doon ku nekk gàddu sa yat léegi nit ñi bu ñuy ñëw sax dañuy ñëwaale ak seen téléphone di la menacer di la agresser ba pare di la provoquer pour boo waxee rek ñu daal lay jàpp ne la wax na lii wala xeex na waaw duñu filmer ne numéro vert lañ am dañ itam dañuy des ak ñoom rek ndaxte ñoom itam ah, ñetti fanu grève ya ñu xàppati woon ni ki tey ji ci minuit nag la war a jeex ñoom itamit la ñuy sàkku ba jamono ji rek mooy nguur ak Sénégal gi ah, daal di wàccoog la mu leen ah, digoon plan d'action baak fa ñu ca toll moom mi nga xamee ni moo di docteur Mamadou Ndiaye di coordonnateur régional And Gueusseum banqaas bi faree fii ci Kaolack àdduna ceek Cheikh Babacar Dieng. waaw dañ nekk si grève boo xam ne war a am ñetti fan daanaka commencé nañ ko si minuit léegi war a dem ba àjjuma moo si donc loolu dañ koy def si territoire bi yëpp maanaam Sénégal bi boo jëlee région yëpp camarades yi fa nekk ñu ngi observer grève waa li ko waral wax naa que sànq ñaari mbir la am na sax bu si dolleeku bu ma fàttee dolli si français bi ñaar yu njëkk yi mooy dañ doon waxtaan depuis 2019 ak nguur gi pour que ñu jël suñu ay revendication am na yoo xam ne waxtaan nañ bu juboo am yoo xam ne dañ ko war waxtaan maanaam mbiru dàmpaay yi si mbiru ko koppar mais yooyu comme président ñu ñaanoon depuis deux mille dix neuf ne nañ ko may ba élection yi jàll fekk commandé na woon benn gëstu pour ñu xool agent yi liggéey ci fonction publique yépp naka lañ leen di fayee léegi moom bi étude boobu génnee dañ doon xaar ñun mu jël matukaay yi pour que ñàkk tolloole ak ñàkk yemale bi am ci liggéeykat yi nguur yi uuf ñu mën ko joyanti jubbanti mais dañ nemmeeku ne au lieu ñu jubbanti maanaam écart yi gënale bi dafa gën a fës gën a yaatu ñu ne nag kon il est temps ñun revendication yi nga xamee ne suñu dàmpaay la secteur santé ñu toog waxtaanee ko ñu xool ñoom lan lañ mën a teg suñu loxo. mais ci biir ñetti fan na ñoo xam ne moom du ngeen leen gréwal de. waa si biir ñetti fan yi xam nga mbirum mbir gu yaram méngoowul ak dara am na ñoo xam ne dañuy toll diggante boo xam ne seen yaram dafay sutante buñ leen toppatoowul mën nañ fa jaar loru te comme bëgguñu kenn loru si donc ñi nga xamee ne dañuy liggéey si service urgence yi ñooñu di wax képp ku ñëw toll si diggante boobu na fa fekk ku koy toppatoo donc matukaay yëpp jël nañ ko pour kenn bañ si loolu. dañuy euh, jógee ko ci Kaolack waa ànd gësëm bu Ndofane itam ña nga woon rek ca Koutal doon fa amal nak la ñu tuddee rek ab quartier général ñoom tamit nag topp nañu grève bi maanaam observé nañu ko kenn ca membre ya moom ma ngay dikkaat rek ci revendication ngeen ñuy fàttali nguur ak Sénégal gi boole ko itam di waxaale nañu nasewoo ci xeex bi Serigne Modou Top ak Cheikh Tidiane Diagne. Koutaal mooy quartier général mooy bu grève amee comme waruñu nekk ci poste yi parce que boo nekkee ci post yi mën nañ la fa fekk dañuy ñëw dajee fenn ci district bi donc mën na nekk kutaal comme mën na nekk feneen ci district bi bu ñu ñëwee toog waxtaan ci plan d'action bi waxtaan sur les problèmes syndicaux waxtaan aussi ci jafe-jafe yi nga xamante ne agents yi ñu ngi koy rencontrer au niveau du district et au niveau du pays donc loolu mooy quartier dañ koy def heure bu grève amee. tey liggéey amul Ndofane. waaw amul ci Sénégal amul ci Ndofane plus particulièrement te loolu tàmbali na depuis démb démb tey ak suba yëpp ñun euh, ànd gësëm nga xamante ne SUTSAS ci la adhéré ñun dañu observé mot de grève bu ñetti fan muy démb ak tey ak suba ah, donc loolu ci plateforme bi la bokk bokk na aussi ci li ñuy wax rétention d'information bokk na ci li ñuy wax boycott des activités muy réunion muy supervision muy bépp activité boo xamante ne dañ koy def ci wàllu wér-gu-yaram donc dañ ko boycotté ba incha allah le 7 mai ba beneen plan d'action di génnaat. d'accord revendication yi xam nañ ko mel ni ba ko ba nàcc ko ba pare la donc signé ko rek moo desoon yeneen yi ci topp jëm ci wàllu acteur communautaire yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ñoom ci répartition clé CDS yi parce que boobu CDS 25 pour cent la leen di séddale daanaka loolu matul dara syndicat nag di réclamer à ce ñu yóbbu ko ba comme que ñoom ñoo koy liggéey yaakaar nañ ne war nañ ci mën a yëg seen bopp indemnité yi nga xamante aussi gis nañ ne proposé gis mu jox ko ñenn ñi bàyyi ñenn ñi mel ni système bi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey te yaakaar naa ni boo xoolee paramédicaux yi ak ñeneen agents yi li ñuy def ci wàllu santé néew nañu koy def ci réew mi donc war nañ leen mën a jox seen gëdd ba ñu yëg ne ñun kat ñu ngi jot suñu gëdd ñeneen ñi tam ñoo xamee ne rek war nañu leen a jox seen ak gëdd nag mooy sage femme yi ndaxte seen ko liggéey métti na tey it am nañu solo rek ci wàllu wàllum paj meek paju mi lu ni mel ba tey nag di ay kàddoom moom sëriñ Modou Top may sàkku itam rek ci askan wi ñu gën a teey na dossier baag la mu làmboo ay kàddoom ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. bon wàllu Louga bi ñu ngi présenté suñu njaal famille Astou Soxna di leen di masaw lii daal métti na trop xëy na lu waroon a am la lu am la waaye syndicat bi moom li ko ci war def na ko mooy wut ay avocat pour taxawu clientam yi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp fële ci luga duñ dugg nag ci problème bi parce que enquête bi mu ngi en cours nañ bàyyi enquête bi mu continuer ba le 27 incha allah bu bi di am ñu mën a déglu xam nan lay demee comme ni nañ ne sage-femme yi ñi ngi def liggéey bu mucc nit bu ñu fàtte barki démb rek Covid bi amoon na demoon nañ bay taxaw sax heure ñëpp génn di tàccu agent ki mënoo koo baaxal tey nag suba nga bonal ko te loolu moo am ci dëkk bi nit ki da nga koy baaxal tey suba nga bonal ko sage-femme yi ak agent de santé yi ñi ngi def liggéey bu mucc ayib waaye nag nañ xoolaat bu baax suñu système de santé bii fi benn sage-femme di nekk ñaata sage-femme ñoo fa waroon nekk benn sage-femme bi ñaata waxtu la war a liggéey ci bés bi donc yooyu yëpp ay détails yoo xamante war nañ ko xoolaat ba mën a gën a jox nit ñi seen gëdd daal wàllu liggéey li may appeler population bi mooy à ce que ñu gën a am compréhension bañ a acharné trop comme ni ñu ko defee actuellement ci agent de santé yi lu nekk ñu ngi koy dégg ci réseaux sociaux yi lu nekk ñu ngi koy dégg ci internet bi ci suñ appel téléphonique yeeg message yi mais nañ def nànk ba enquête bi yéen bañ xam dëgg fan la féetee ba pare parce que aussi tëb tëb rek ne diw moo def dara te dégluwoo tey agent boobu lan mooy version kee dafa wax rek bi mu ko donc nañ xaar ba déglu agent de santé yi nañ xaar ba procès bi am ñu xam la moom amul sax euh, naataable nous exigeons yooyu le plus rapidement possible ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen liggéey dellu ci seen njaboot nañ leen libérer le plus rapidement possible nañ leen bàyyi gannaaw enquête bi wéy waaye nañ leen ba ñu dellu ci seen liggéeyukaay ñu ngi noonu ci pàttali nag ñooñee nga xamee ni itam dañu leen teg loxo mu ñeenti sages-femmes yooyu ñu tudd nag ci mbiram Fatou Astou Sokhna jàpp leen ne itam rek ne ñaar fukki fan fan la wànnent di mujj ak yi ak gëttam waaye lii itam nag junjoon naa leen ko ni ki tey ji nag jàpp leen ne itam ne syndicat bi attaqué ñi nga xamee ne ñoo di pharmacien privé yi ci zone centre bi maanaam Kaolack Fatick ak Kaffrine ñoom itamit dañoo fas yéene rek amal la ñu tuddee nag ab grève demi journée maanaam daal dañuy xaaj bés bi la ñu bëgg nag mooy ñu dégg leen te taxaw itam ci mbir moo xamee ne ma nga rek seen ñaari naataango coordonnateur syndicat boobee di docteur Ibrahima Diop andi Cheikh Ababacar Dieng. waaw dañuy dem grève vendredi à partir de huit heures ba quinze heures demi journée grève bi nag dañ ko bëggoon def sa vingt quatre heures mais dañ ne nañ xaaj journée bi def ko demi journée ñu amul satisfaction après ñu soog jàll si beneen étape boo xam ne dañ koy waxtaanee si assemblée générale mais luñ tënk si assemblée générale bi mooy ministre bi na rétablir docteur Aïcha Goudiaby madame Mbodj droit am ñun woon xeex beneen bi mooy point bu ñuy réclamer mooy le départ immédiat du directeur de la pharmacie et médicament ñaari point yooyu moom la ñuy gréval ñuy laaj état bi léegi nag avant boobu bind nañ courrier président de la république pour yëgal ko parce que bañ mu ne yëgul mi ngi ko courrier beneen bi mooy ginnaaw biñ ko bindee ba pare loolu après assemblée générale bi la woon léegi nag dañuy def baisse des rideaux maanaam tëj suñu pharmacie yi à partir de huit heures quinze heures vendredi te c'est renouvelable maanaam dàquñ tëjaat beneen yoon suñu pharmacie yi kon ñu bëri lañu foogoon yéen da ngeen di grève pour jàppale médecins yeeg waa ànd dësam waaye yéen seen yëfi bopp ngeen kenn ki tudd docteur Aïcha Goudiaby ñu koy wax madame Mbodj ak keneen ku ñu wax Ami Gassama di madame Balde ñaari jigéen yooyu nag ñoom ñaar ñëpp ay pharmacien lañ docteur Aïssa Goudiaby moom moo nekkoon ci benn pharmacie bu ñuy wax pharmacie nation mu nekk place de l'indépendance waa IPRES luyee ko bâtiment bi nekk fa di exercer di exercer di exercer depuis 1981 donc pharmacie bu yàgg la IPRES mu ko luyee woon ne ko ah soxna si madame Mbodj ñun dañuy defaraat suñu locaux yi dañoo bëggoon nga déplacé mais loolu du wax rek teg dafa am kayit yu ko doon tënk waxuñ rek mais dafa am ay kayit ay bind ak lépp am bàyyi IPRES def travaux ba pare à notre grande surprise ñu gis ne IPRES jël na bàyyi madame Mbodj boobu de bàyyi Ami Gassama madame Balde dèjà locataire sax mën moo mën a signé ñaari contrat si benn def nañ am arrêté arrêté pour exercer métier pharmacie bi léegi ñu nangu arrêté ba pare abrogé mooy retirer licence am madame def na lépp lu mu doon def dem ci tribunal tribunal en faveur de madame Mbodj jox ko dëgg mais à notre grande surprise bu ñu ko joxee dëgg boobu la directeur de la pharmacie abrogé arrêté madame Mbodj bi ba pare nag yow naka ngay arrêté nit autorisation ba pare ne ko utal feneen foo tox mu nekkoon ay leeral yu tukkee ko ci euh, docteur Ibrahima Diop mi nga xamee ne mooy coordonnateur euh, syndicat bi takkee pharmacien privé yi ci euh, Kaolack Fatick ak Kaffrine juróom-ñeenti waxtu ci suba gi jot na ba tegal fukki simili ak juróom-ñaar ca mairie bu Kaolack. yéen a gi déglu xibaar yi ci Alfayda FM Euh, lii itam nag euh, junjoon naa leen ko lu euh, tollook deux cent millions maanaam daal ñaar téeméeri million ci sunu ay koppar mooy nag la ñu nar a dugal rek ci ab projet bu daal di soxal nag réhabilitation mairie bu Kaolack bi la ñu bëgg nag ñoom kilifaay mairie boobee mooy rek méngale barab baak jamono waaye itam nag daal di yokk rek li mu la nga xamee ni moo di bureau ya Mbaye Ngom di kenn ca tofoy mairie bu Kaolack bi mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. tey dañu woolu presse bi pour waxtaan ak population lancé euh, projet defaraat batiment hôtel de ville bi muy mairie bi parce xool nañ ñu Kaolack ku fi nekk xam nañ ni mairie bi mosuñu ko defaraat bi ñu ko tabaxee ba léegi te gis ngeen état bi nu mu mel neexul la gis mais soo duggee ci biir aussi amul confort maanaam toilette yeeg bureau yeeg euh, porte yeeg fenêtre yi vraiment neexul gis mais même ñun ñi nga xam ne fii la ñuy liggéey di fi dund dañu am ay yenn contrainte ni ko euh, tubaab di waxee pour mun fi dund te aussi nee nañ ñi la uddi giseen moom la lay éwale suñuy gan dañ fiy ñëw mooy gan yi nga xamante ne dañ fiy ñëw ut si ay këyit état civil bi que 80 pour cent yu ñëw moom la ñuy ñëw ñu ñëwee amuñu fuñ toog parce que amul espace bu doy suñ ñëwee aussi même accessibilité bi day xaw a metti beneen bi aussi dañuy am gan ay autorités yoo xam ne dañ fiy ñëw suñu ñëwee normalement waruñu leen accueillir ci hôtel fii lañ leen war a accueillir te fii vraiment amul taar boo xamante ni mën nañ fi accueillir ay autorités mën nañ fi accueillir ay kii te euh, aussi même ak ak ak yelleef ñi nga xam ne dañ fiy liggéey jógee sa kër bàyyi fa loo xamante ne yaa ngi ci jàmm mais ñëw fii gis fi yenn état euh, bâtiment bi rafetul moo tax ñu ne vraiment bokkoon na ci suñu campagne ànd nawle bi ñuy def euh, campagne électorale bi ne suñu gañee mairie bi incha allah li ñuy njëkk def mooy li nga xam ne ñëpp a ko bokk muy mairie bi defaraat ko defaraat ko de telle sorte que ku fiy ñëw di nga gis ni changé nañ ko mais ku fiy ñëw di nga am place boo xam ne bu dallu la boo xamante ni bu baxane di nga fi mën a toog def sa soxla di wax ni aussi soo leen xoolee bâtiment bi augmentation am ci adjoint maire augmentation ñoo xam ne aussi ci personnel bi da ngay gis nit ñi dañuy euh, côtoyer ay bureau amoon nañ fi bureau au total dina dem ba 33 bureau sans compter ay open space xamante ni nit ñi dañ fa liggéey en communion durée bi projet bi xam nga biñ koy tàmbale tàmbale nañ ko bugguñu jël waa mairie bi yóbbu leen feneen day andi yeneen coût moo tax dañuy liggéey ak nit ñi ci biir ñun ñu ngi ko estimé à 200 parce que day doon vraiment un bâtiment moderne tout neuf vitré avec euh, éclairage ñu ngi ko calculer ci 200 millions donc ñu ngi koy xayma daal ci ñetti weer Mbaye Ngom ñuy des ba tey nag ci googule mbir euh, ci lu aju itam nag ci yenn ci ay travaux modernisation yoo xamee ne mi ngi aju woon rek ci mairie bu Kaolack bi li tax ñu daal di koy dakkal li waral coppite gi li lépp itam indiwaat na ci rek ay leeral euh, ci micro Cheikh Tidiane Diagne. dañ ne yenn liggéey yi lu ci mel ni état civil bi dañ ko xaw taxawal tuuti ak stade municipal bi pour xool li nga xam ne population moom lañ gën a soxla parce que soo ñëwee ci bu bees doo ñëw ngay continuer noonu ay techniciens lañ am nañ xam-xam population fi teg su paree population bi dañ ci gis seen njëriñ ci lañ ne nag nañu mettre en stand yenn projet yi dem ci priorité yi discuter ak euh, structure yi nga xamante ni ñoo ŋànk financement bi ah lu ci mel lu ci mel ni trésor public PACASEN euh, ñoom ñu ne leen ñun suñu priorité lii la wax dëgg yàlla ñoom dinañ comprendre loolu beneen bi aussi entreprise yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ñoom tam ñu flexible de telle sorte que suñu bëggee changement de projet ñoom dañuy suivre di wax ne aussi entreprise bi nga xam ne moo doon defar état civil bu la ñu transféré fii rek moom mooy c'est une euh, continuité parce que gis nañ fii am na priorité ñun suñ fi nekkoon avant wax dëgg yàlla du ñu lancer projet bële parce que c'est un fondation dafa cher nga and commencé bâtiment bu xam ne taxaw na ba pare des na espace des na ay moo tax ñu changer suñu priorité andi ko fi. liggéey boobee nag ñu daal euh, dakkal rek ñoom équipe municipale bu yees bi nag warutoon ndaxte itam nag am na ay naal ak i sumb yu ñu fa fekk waroon koy euh, wëyal lu ni mel moo ko daal di xamle moom nag Souleymane Diaw ma nga doon naqarlu ak métit lu mbir yi ne loolu itam duñu ko bàyyi noonee ay kàddoom mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. mais li ma gis ni moom vraiment jëmul kër. lu tax jëmul kër ay acquis dëkk dañ koy considérer quoi de la commune. je pense que ne ñun ñu fi def pendant sept ans et quelques mois. on a eu à faire des yoo xam ci biir dëkk bi réalisation yëpp da koo jël ba koo jël rek takk ko teg ko fenn te loolu nag ñun moom a taxaw dénoncer ko xam ne li rafetul daal. jël ko ville bi ñu ne na mel tuuti na nit ña fay ñëw bëri nañ te attanu lu toll ni commune de Kaolack mu am benn direction ñëpp jëm fuutu fi ay kayit ñu ne nañ tabax benn état civil teg fi si biir mairie bi mu nekk état civil Fodé Ndour tey jii à notre grande surprise mu arrêté travaux yi ne day jël fonds yooyu mel nañu waroon def ci biir état civil tabaxee ko ay bureau des adjoints au maire ci biir mairie bi te ñu ne bâtiment bi est que attan na loolu ak ñoom mooy boobu mu ci seen kaw yàlla bu mu am nag mais comme ñoom loolu lañ prévoir te kon ñu bañ charge bâtiment bi ba tax ñuy tabax da nekk loo xam ne neexuñu bi ci topp mooy Kaolack gi yëpp dañoo toog di jooy stade ba Kaolack am stade foofu mu ñëw day arrêté travaux parce que daf koy tabaxee ay stade yu ndaw mun a ci biir quartier yi pour gars yi di ko loué ñu dugal ay fonds mais vraiment ma xam ne kii daf ñuy fontoo jógut pour liggéey mais dafa jóg pour yàq la lu gën a garaaw ci inondation ñuy parle de canalisation fu ndox yi war a jaar gars yëpp di jooy fermeture des canaux à ciel ouvert ñu am projet boobu mu ñoo ne day arrêté encore fermeture canaux yi mais aussi boo xool yi ma la étaleel est que moom jóg na pour defar Kaolack wala dafa jóg pour utiliser Kaolack à d'autres su yaakaaree ne ne Kaolack mooy CCBM il se trompe la mairie de Kaolack n'est pas CCBM te ñun danañ ko jaamaar ma bon ko ne ko li ngay def tegoo ko fent dinañ ko teg wala ñu xam ni def moom mais du continuer ci lii. mi ngi noonu ñoo ko euh, déggandoo ci pàttali nag moom Souleymane Diaw moomee euh, secrétaire général élu la woon ca commune bu kaw Kaolack waaye itam nag di kenn rek ci parti bi di AFP ñu woy ba tey ci ay xibaar yu wér te wóor. xibaar yi ci yegg si euh, nañu nag ci ponk yi nga xamee ne moom la ñu euh, jagleel rek li nga xamee ne moo di weeru euh, koor gi junjoon naa leen ko jaarale ko nag ci ay plateau télé ak it li nga xamee ne moo di réseaux sociaux yi diine jekk tarixa ji nag yenn saa yi rek dañu koy daal di jëfandikoo maanaam daal nañu koy utiliser mooy rek def ci li nga xamee ne moo di ay influence yenn saa yi tamit nag muy dem rek bay jur li nga xamee ne moo di ay di tante mu jot tey ji nag ñu daal di koy moytu Alioune Badara Diop. ci jamonoy weeru koor gi dañuy faral di gis lu bari. féewaloo ci wàllum tarixa yi loolee doon loo xam ne askan bi rafetlu wuñ ko te bu doon loo xam ni dañ ko war a moytu mu dem sax bay jur ay coow te loolu yëpp réer kese yi moo koy indi Cheikh Taha Dem waaw loolu yëpp lu ko waral mooy ñàkk xam mooy réer réer baaxut musiba boo gis ci àddina li ci ëpp réer rek moo ko àndi waaye ku xam ku nekk da xam ne bu ñu ko waxee moom mooy yoon yoon yëpp fenn rek da lay jëmee moo ci yàlla ki nga xam ne moo taxaw ca buntu yàlla te ku àggul ci moom doo àgg ci yàlla kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem yoon boo gis rek ci moom la jokku direct bépp yoon bu jokkul ci yonent bi sallallahu alayhi yoon boobu amul njariñ ginnaaw ñoo bokk diine gi di lislaam ba tax na baax na lool ñuy bàyyi xel njëriñ bi nga xam ni sunu tariqa yi mun nañu ko àndil ñoo bokk luñ bëgg ñoo bokk fuñ jëm waruñoo xiiroo waruñoo ŋaayoo ndax xam nga ñu bëri ci Sénégal dañuy jàpp tariqa te xamuñ lan mooy njëriñu tariqa ñu ci bëri dañ ñoo fekk seen bàyyi nekk ci tariqa ñoom ñu nekk ci tariqa boobu mooy ci te duñ gëstu tariqa bi lan la duñ xam tamit lan moo tax ñu war a jàpp tariqa nit su jàppee tariqa tariqa lan la ko war a jëriñ tariqa fan la ko war a yóbbu ñu bari xam loolu man tijaan laa man murit la man qaadir laa man laayin laa foofu nga ci yam jokku ci ab tariqa mooy feddali sa kóllëre yi jëmale ko ci ngëm yàlla te xamoo lan mooy njëriñu tariqa te tariqa yi lu leen tax ñëw mooy lan mooy jàpp jaamu yàlla yi dindi seen kiiraay seen digganteeg seen borom ñu xam yàlla xam seen bopp mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell nekk nga xamee ne lislaam ñett maqaama moo ci nekk diine gi ñett maqaama maqaama la maqaamal islaam maqaamal imaan maqaama ihsaan lislaam mooy ngay pratiquer julli oor ak nag gannaaw boo waxee ñaari baatu seede yi liimaan mooy nga gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu wa sallam ak yonent yi jiitu téere yu wàcc ak lépp lu yonent bi wax alquran wax ko te gisuñ ko ñu war ko gëm lihsaan nag mooy nga sellal jëf yi ngay jëf bu ñeel yàlla loolu nag moo indi tariqa yi pour ñu mën a tàggat nit ñi defar seen bakkan ba seen bakkan dee dootuñ jaamu seen bànneexu bakkan dootuñ topp seen bànneexu bakkan ñuy topp yàlla nekk ay jaamu yàlla lu sell ñu bëri nag loolu xamuñ ko. cokkaas yi ñuy faral di gis nag ci tarixa yooyu mën na ñàkk te li waral li ni mel du leen lu dul réseaux sociaux yi. boo jëriñoo ci tarixa bi nga nekk xam nga jëloon ngay toñ beneen tarix bàyyil keneen tamit lu mos mu mos ko lu mu xam mu xam ko. te ñu moytu yenn influence yi nga xamante ne mi nga am ci réseau sociaux yi lu jar moytu la ndax lu ci bëri ñoom tamit tarixa taxul leen a jóg diine waaye nag lislaam lañ bëgg a xeex. liy gën a fësal bi le mbir ci waxtu weer koor gi lee bokk na si yenn plateau télévisé yi yi ñuy faral di gis wante tamit influence yi nga xam ni jumtukaay xaral yu yees yi dañ ko siy nemmeeku te loolee doon na loo xam ni lu askan bi ni ñaawlu la ndaxte bu ñu fàttee tariqa yépp ñoo bokk benn diin bi di lislaam. jaajëf Alioune Badara Diop dañuy des ba tey ci bunt boobee waaye tamit nag daal di wax rek jëme ci leneen jaaree ko nag ci weeru sel nii moom nag bàjjenu gox bi di Anta Jali xalaat nañ ñi nga xamee ne itam ne ñoo di taalibe yi muy ndongo daara yi moom mi taxawaloon rek ci ay fan yi ñu génn journée sans mendicité bi jaare na ci itam nag jox leen ay ndogu ak ndimbal yu am solo Anta Jali dikkaat na ci solo jëf ji mi ngi ci micro noa bi ay bu weeru koor xasee nit ñu bëri dañuy focaliser wu si conférence te tamit tout tànk yi dañoo war a toog au moins benn bés sentir ne dinañ toog lekk sur place duñu dem yelwaani ndax ñëpp ngi leen di fàtte daanaka moo tax ma initier journée sans mendicité bi nga xam ne dañ leen di fekk si ci daara ji jox leen lu ñu lekk waxtaan ak ñoom dalal seen xel tamit wax leen ne am nañ ay yaay am nañ ay bàjjen am nañ aussi ñu leen di bàyyee xel ndax loolu daf leen di yokk courage da leen di yokk jom day tax ñu xam ne ñoom tamit ci société bi lañ bokk bu ko defee ma uutaale leen li nga xamante ni mooy yëre yi nga xamante ni même bu fekkul yëre qualité la aussi yëre bu bees la ndax jouri korité seen morom yi bu ñu solee yëre yu bees ñoom tamit du sentir vexé wu dinañ sol yëre yu bees comme seen morom yi naa leen ndogu ndogu bi nag ndogu complet la parce que indi naa ndogu indi reer indi leen glace pour ñu réfléchir indi ndox indi leen ay bisaab pour ñu naan comme ni ngay defaree ndogu sa kër rek noonu laa ko defaree indi leen ko ndax dama leen jàpp ni sama njaboot yi ma bàyyi ci kër ga daanaka hôpital moo gën a néew si lu ñuy liggéey ci titre bàjjenu gox ndax man dund ci social màgg fekk social di ci yëngatu bu baax a baax a baax vraiment daara yi am nañ problème mais aussi di remercier kenn ni daf ma jàppale ren parce que ren yaakaaroon naa ne sax journée bi du ma ko def ndax am mbetteel lool lool lool lool gis ngeen moo tax sax affaire yi xaw a brutal nii ndax dama ko doon jàpp lu yàgg mais ren dama ko jàpp ci diir bu gàtt muy ki nga xamante ni mooy directeur u Senelec muy Pape Demba bi tey ndax daara yi ku ma ci jàppale rek vraiment dama lay naw ndax social laa bëgg kon bu ma gisee kuy def social dama koy bëgg dama koy naw si kaw loolu maa ngi oo aussi politiciens yëpp bu ñu mënee def ni moom ñu jàppale ñu ci daara yi ndax gis ngeen ne daara yi suñu njaboot ñoo fi nekk ndimbalanteeg jàppalante googee nag mu jëmale woon rek ci daara yi moom njiital bàjjanu gox yi ci diwaan wi doon na itam loo xamee ne rek ne askan wi ña nga koy ah, rafetlu ba tax na sax sëriñ daara ya nga xamee ne moom la yóbbuloon ah, xéewal yooyee ñoom itamit nag sant nañu gërëm ne lii du guleet ci taxawaayam ah, Demba Cissé mi ngi ci micro noa bi ay li nekkul première fois nekkul di dim deuxième fois yaakaar naa depuis bu ñëwee kawoon fii ba léegi bi ñu xamante bu njëkk sax li ko waraloon moo doon benn xale bu accident woon si kaw taliba moom mu jëloon à charge jël ko yóbbu hôpital taxawoon bu rafet foofu la ñu xamante ba léegi mu

jafe-jafe la yegg si nañu nag ca ponk ba ñu uh, tuddee yóbbalu uh, koor gi niki tey ji nag la ñuy jàng ji rek mooy sooraat bi di Hann la muy tekki la muy uh, dëxëñ yëpp ni ay mbóot oustaz Mouhamed saw di ca waxtaan ak soxna Ndeye Fatou Cissé tey suñu jàngatu alquran mu ngi aju ci saar bu ñu wooyee suuratul al anfaal maa nga ne suuratul anfaal mooy ay màng yi nga xam ne ñu ngi koy amee ci jihaad yi daan def diggante jullit ñi ak yéefar yi sax na bàyyi ko ci saxaaba faal dépp ci sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci kaamil bi tur boobu lay bind maanaam turu al anfaal ñoo ne ci xadis boo xam ne saadu ibnu abi waqaas moo koy nettali mu ne ah keroog xare badar dañoo rey sama benn frère man it ma rey ku ñuy wax saïd ibnu al aas bu ma ko reyee ma nangu jaaseem ji ma ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma defal jaasi ji ci bagaas yale maanaam nanga ko delloo ca bagaas ya fu nga ko dajale ñeneen am naqar lool ci ñaari mbir naqar ñu ngi rey sama frère ci xare ba ñaareel ba mooy jaasi ji nga xam ne maa rey ki nga xam ne mooy Saïd ibn al Aas nangu jaaseem moom it ñu boole ko ci màng ya nee yàggul dara borom bi jalla wala wàcce saaru al anfaal yonent bi ne ma sallallahu alayhi wa sallam fa xud sayfaka jëlal sa jaasi borom bi jalla wala dafa ubbee saar bi di ci leeral atte ay màng atte màng yi nga xam ne moom la ñuy màng ci xare yi ci jihaad ya xam nga anfaal dafay yóbbaale ñaar xam nga màng ci xare ñaari xeet la màng boo xam ne xare daa am ngeen gañe jël bagage yi wala màng boo xam ne xare amut da ngeen ñëw noon bi daw ngeen nangu ay bagage am bee moo tudd alxanimatu mooy bi ànd ak xare bi nga xam ne xare amul nag moo tudd al fay u mais baatu al anfaal moom day yóbbaale ñaar yooyu yëpp xabaar yi ña nga ca roppalaanam Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf Ngoné Ndiaye ren xibaar bi ñu dañ koy dooree ak réew bu RDC Congo wax ci gouvernement bi nga xam ne dafa yokk lii di payooru fonctionnaire yi mbir moom moomee doon xibaar boo xam ne xibaar bu mucc ayib la ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci fonction publique bi la mu mel ne ndogal boobu la dinañ ko door ci weeru avril bi ñu nekk ginnaaw ci kàddu gi nga xam ni mooy vice premier ministre bi moom mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum fonction publique bi yokkute boobu la mën a dem ba egg ci pour cent. bitim dem ba réew bu Mali wax ci benn russe boo xam ne dañu faat bakkanam fële ca yi loolu waral soldat yi nga xam ne ñu nekk ci réew bu Mali ñoom moom la fépp wante ci fàttali russe boobu la ñàkk bakkanam ci armée malienne bi la bokkoon ginnaaw bi ñu ko piégé ci otom mu explosé mbir moom la mu ngi am ci talaata bi ñuy weesu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril fële ca Ombori ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci suñu mbokk taskati xibaar yi nekk ci RFI loolee tax ñi nga xam ne ñoo bokk ci armée bu Mali bi daf nañ riposte gi ko jëm a xam ni def bi la ñaawteef xabaar dem ba réew Burkina Faso ay douanier ak ay gendarme yoo xam ni dañ leen a jàppoon ci wàllum trafic carburant mbir moom la mu ngi amoon ci weeru septembre atum 2021 ginnaaw bi ñu leen soupçonné na ñoom ñoo def bi lee ñaawteef te lim bi na lool ndaxte ëpp nañu ay fukki doomu aadama ñoo xam ne dañ doon yëngatu ci wàllum guerre ak li nga xam ne mooy blanchiment d'argent wante tuuma yi nga xam ne teg nañ ko seen ndodd bokk na ci wàllum financement jëmale na ci weeru décembre bi weesu ci lañ ci tane meek ñoo xam ne bokkoon li nga xam ne mooy jant jël amande buy tolloo ki ay milliards. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu beneen wax ci li nga xam ne mooy élection législative yi ginnaaw fukki kese moo des ñu dem ci bile jongante ba tax na ñi nga xam ne ñu bokk ci parti yi les démocrates bokkoon ci njiitu réew bu njëkk bi di Boni Yayi ginnaaw ci loolu ñoom seen mébét lenn kese la mooy ñu def élection législative yi ci anam mu ci ay te buñ ci gis benn lënc lënc loolu doon xeex bi nga xam ne moom la démocrate di xeex ci waxtu bi ñu toll foofu ca réew bu beneen. bitim réew jeexale xibaar bitim réew ak réew bu France wax ci li nga xam ne mooy waajtaay élection présidentielle deuxième tour bi foofu ci réew bu France ci diggante ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron ak kii di Marine Le Pen ginnaaw jàkkaarloo bi nga xam ne amoonoon nañ ko ci àllarba bi ñu weesu ci benn télévision foofu ci réew bu France ñoom ñaar ñooñu lee wax nañ ci li nga xam ne mooy situation li di réew bu Russie économie bi wante li nga xam ne mooy wàllum climat bi donte sax luy tolloog ñetti fan kese moo des ñu dem ci li nga xam ne mooy deuxième tour élection présidentielle yi foofu ci réew bu France. xabaar yi bitim réew. jërëjëf Soxna foofu la ñu am ci li nga xam ni mooy xibaar yi bitim réew yi kenn dalay jàmm. xabaaru tàggat yaram bàkk bàngook xabaaru euh, tàggat yaram laataa ñu ko jébbal kàddu gi moom Serigne Moussa Kane lii itam nag junjoon naa leen ko ni ki démb nag la ñu doon amal rek la ñu tuddee nag état des lieux amal itam ab doxantu rek ci juróomi terrain ya nga xamee ne moom la ñu tànn ngir itam rek ñu daal di bokk ci projet modernisation bu soxal itam la ñu tuddee rek ay terrain municipal koppar ya nag ba ñu ko xayma mënees nay wax ne dina àgg rek ba ci trente millions terrain bu ne njeexitalu projet bi ak ak Cheikh Tidiane Diagne. terrain Déggo terrain Albouri ak terrain Boussan yeneen ñaari barab yi nekk ci diwaanu Kaolack dinañu ko soppi mu doon moomeelu mairie bu Kaolack ak population bi barab yi nag dañu ko bëgg a def ay terrain yoo xamante ne day am gazon synthétique comme bi nekk kër de ville bu diwaanu Kaolack méngale ko ak jamono xale yi di ki tàggatee seen yaram waaye tamit ñu defal leen ci ay boutique yoo xamante ne dinañ ci mën a jëlee lépp loo xamante ne dafa ñeel wala ko subvention lii nag démb la ngi doon amal visite de terrain yi ci teewaayu Mbaye Ngom adjoint bu Kaolack suñuy ñëw bay def terrain yi nii dañ bëgg suñ ko defaree club yi fi nekk ak ay ASC yi ñu defal leen autour ay cantines yi nga xamante ne dañ koy loué cantines yooyu suñ ko loué li ciy génn mairie bi da ciy am wàllam ASC yi ak club yi aussi ñu ci am seen wàll mën a demal seen bopp. parce que comme ay boutique de telle sorte que dinañ mën a demal seen bopp. mairie bu Kaolack nag moo sàlloo lépp lu jëm ci wàllug subvention yu ay ASC yi lu nu mel nag équipe municipale bu bees bi nekk file ci diwaanu Kaolack nee na ñu faaw ñu soppi le maire lu mu bëgg mooy ñoom ñu am seen yëfu bopp boo xam dinañ mën a subventionné seen bopp dinañ ci mën a gis seen bopp projet bu mel nii nag ñu koy def dañ dem ci cinq projet terrain yoo xam ne c'est des terrains type ci cinq zones yu nekk à Kaolack lañ ci njëkk choisir muy terrain di Digo mooy doon prototype bi. adjoint maire bi lee di Mbaye Ngom nag dikkaat na ci koppar gi nga xamante ne moom la ñu war a def ci barab yu ni mel. ñu ngi estimer le budget ci trente millions par terrain dinañ ci mën a football guddi comme bëccëg ce sera vraiment sécurisé clôturé comme terrain yi ngay gis. gis un peu lu ci mel ni comme bu cœur de ville bu ndaw la bii vraiment day doon un terrain normé boo xam ne dinañ ci mën a football nawetaan yeeg yooyu. ay terrain municipal la ñu koy tuddee bu ñu sukkandikoo ci ñoom waa bu Kaolack nag ñu ne barab yooyee bu noppee dañu koy commercialiser maanaam am na ñoo xamante ne bu ñu fay tàggatee seen yaram faaw ñu génnee koppar waaye nag dinañu ko def ba nga xamante ne coow di ci am waaye tamit ñi dëkkee ci quartier bi ñu ci gis seen bopp. Jokko Jàll Cheikh Tidiane Diagne waaye nag duñu la bàyyee bàyyeegum dañuy des ba tey rek ca googule mbir eh, ka ñu dénk nag wàllum tàggat yaram ca boobule eh, équipe municipale bu yees moom nag dikkaat na rek ci li nga xamee ne moo di eh, solos projet bi la mu làmboo ak it jubluwaay bi nga xamee ne moom maire bi daal dina koy am rek ngir nag lu gën a dooleel ak lu yëkkati wàllum tàggat yaram gi fii ci diwaan bi Abda Ath àdduna ci ak Cheikh Tidiane Diagne. monsieur le maire Serigne Mboup bi nga xam ne bi mu ñëwee dafa jàppale Kaolack dafa bugg ci côté sport mu nekk équipe dëkk bi gën a xarañ ci mbirum sport ay infrastructure moo tax ñu démarré gu pour terrain yi nga xam ne ñoo ci dëkk bi dana am juróomi terrain yoo xam ne comme terrain déggoo bi ñu nekk euh, na ci terrain Albouri euh, ñooy sport ñi nga xam ne handball basket aussi dañ xool yi ñu ci mën a réparer ñu réparer ko yeneen terrain yi nga xam ne équipe nationale dañ ci entraîner aussi yi ñu ci mën a aménager jàppale leen gradé waat la ko ba mu nivelé pour que pratique sport bi gën a baax objectif bi daal c'est faire en nekk ci kaw que suñ yi yéegaat sport bi avancé kaw la arène Manga Diouf tam xool nañ ko keroog mun na am ñu étudier ko xool ndax dañ koy raser wala dañ koy defaraat en tout cas luy sport daal infrastructure moom incha allah le maire Serigne Boub fas na yéene def ci le maximum te je suñu amee infrastructure ba plan yi rapidement proposé ñu ko et je crois que bu ñu ko validé rek ñoom dañ commencé liggéey bi incha allah bi quoi waaw mu nekkoon ay yi Abda Athie foofee sax nag la aw rek jébbal ko kaddu gi Serigne Moussa Kane maa ngi laa nuyu Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom di leen ziar ci àjjuma ji xibaaru tàggat yaram dañu koy doore ak wàccaayu coupe du monde 2022 DTN bi ak kii tàggat yaram yi di ak fédération gaynde yi daal di amal ñaari jogante xarito laataa ñuy football seen jogante ci coupe du monde bi match d'ouverture ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre seen diggante ak Pays-Bas ñoom soxla nañ ci ñaari jogante xarito football ci jigéen ñi juróom-ñaareelu bëccëg phase retour ci D1 ginnaaw bi nga xamante ni ñaar fukki but ak juróom-benn lañ ci dugal nag leader bi nekk ci poule A bi di Kaolack FC am na fukki poñ ak juróom daal dinay dem duma ñi nga xamante ñoom ñooy waa bu B bi nag moom dafa tëcc tëcc yu métti ñi di waa Sirène Grand Yoff fukki bal ak juróom-ñaar ci dara ñu dem ca Guinée kii di Kaba Diawara nag moom la ñu tabb mu nekk entraîneur série nationale bi ci A bi mission bu njëkk nag moom mooy mu daal di qualifié ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Guinée ci Coupe d'Afrique 2023 gi ñu dëgmal moom la ñu sas kii di Kaba a ñeent fukki at ak juróom-benn Mali juróom fukki candidat ak ñaar la ñu nag ñooy xëccoo li nga xamante ni moom mooy poste entraîneur équipe nationale bi nag ginnaaw dàqub Mohamed Makasuba ginnaaw bi mu amee échec ci huitième de finale ak barrage coupe du monde bi nag Mali ña ngay wër entraîneur ñi ñu yore seen équipe nationale ñu dem ci dendok Europe démb fanweeri bëccëg bekk ñett Liga espagnole Levante dafa ñàkk ci kanamu Séville ñaari bal ci ñett espagnol ñàkk ci kanamu Rayo Vallecano benn bal ci dara Cadix ñàkk ci kanamu Atlético Bilbao ñaari bal ci ñett fanweeri bëccëg bi Premier League ci Angleterre Burnley dafa am ndam ci kanamu Southampton ñaari bal ci dara mbokk yi jot na ñu sob ak yéen ci seen rubrique tàggat yaram ak koor Alfayda FM xam nga jigéen wérul moom cas particulier la parce que déjà moom dafay soxla apport énergétique mm-hmm. pour boppam soxla ko également pour ki nga xamante ni moom la ëmb donc lu ci gën a bëri su dee grossesse bi dafa xaw a avancé tuuti dañ leen di conseiller ñu soir ci juin bi ba yàlla may leen ñu wasin ak jàmm ñu rattrapé wu parce que au delà ñoom ci seen bopp dafa am tamit comme li ñuy wax xale bi nga xamante ni moom lañ ëmb aussi dafay soxla ay apport énergétique te xëy na suñ toogee journée fekkuñu apport yooyu mën na manqué moo tax pour jigéenu wérul yi moom ay cas particulier la am na ci tamit ñeneen ñoo xamante ni au delà de seen grossesse mën nañu sooxaale ay yeneen feebar mel ne ay anémie wala koo xamante ni surtout ci début de grossesse day wàccu yooyu yëpp day tax le plus souvent ñoom duñu nekk en état de pouvoir gêner. est-ce que jigéen bu wérul mën na woor ba def tàggat yaram. non ça moom c'est pas c'est pas conseillé parce li ñuy wax ay circonstances yu ni peut-être mën na koo jural ay plus que lu mu koy indil ci ay bienfaits. ma ngoog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee Kenda yu jàmm li ma gënoon a fa ci xibaaru tàggat yaram yi juma mubarak. xibaar yi si Alfayda. ñu daal di wëy ci euh, xibaar yi yegsi nañu nag ci euh, kooru gay moolum géej ak Baara Diop. kooru gay moolum géej ñaar fukki fan ci koor gi o Haji Ibrahim Gaye kaam moo ngi bëgg a critique nde sàggan na ba fukki fanu yërmande yi jeex te waru ci benn fukki fanu njégale ci topp DG fasu ci benn nag ñoo ngi ci bëgg fan yu mujj yu goreel ci safara o xaaj ibrahim gay bu ko woorut làmbaay ñaaw tax mu am lu ko naqari ay rankoñam di roogalaat xolam tooy o xaaj ibrahim gay tey jii nag yeesalaat na sellal na ci côté bu ne comme tiit na ci ëllëgam koorog tayam ji du ko tayle ndax ñu xëdd rek mu wutali jumaa ja ñu julli fajar ba noppi mu tee kurusam di koj koji rek ba mi di jot ca la namm ay tànkam ngir dàq koor ba mu yegg saam la jàdd kër xaritam ba sëriñam ba cheikh baay diin ñas Niass baay Nourou ODG naka mu dugg rek jàmmalanteeg moom laataa jàmmalante bi di sori wax na ko boppam xamal ko ne làqagut benn ci ay fan ci koor gi tax mu ñëw jéggalu si waa sëriñ daa bu nga defaral ma ñaan benn fan waraguma ko ci koor gi te démb maa ngi déglu benn waaraatekat muy tudd ay safara oh sama yaram daw cheikh baay Nourou ah li nga wax doy na waar yàlla boo xam ne gor rek ko man comme ni nga wax naa la dimbalee kéem li ma man léegi nag comme gëj naa laa gis danga may yendul ñu toogandoo nii ci saal bi DG <laughs> ah, waaw loolu baax na kay waaye de <laughs> waaw nga defal ma ñaan de man daal fu mu jotee rek sama biir bi <laughs> tàmbali di yëglu te su ma fi may wax yow nii sonn naa de o oh, Haaj Ibrahim Gaye mook sëriñam bile fu ñu jëm tey tax Cheikh Baye Nourou xamal ko ne demal fële ca robine ba nga jàpp jàpp bu set nga ñëw ma defal la ñaan DG ca la jubale robinet ba daal di jàpp jàpp bu sell nde da ko doon benn bennal mu dikkaat moo ngi coroon sëriñam Cheikh Baye Nouruddin ca la tàmbali te ca bopp ba di ko léemu di ko ñaanalit boole ci di ko laaj euh, su ma paree ci yow li ma lay defar sa xel du jëmati ci dagg sa koor boo ko esee sax doo ko man dèj <laughs> ah euh, <laughs> sëriñ su ma xiifee nag mbaa am ay conséquences Baye Nourou boo xiifee lan ci koor gi laa wax gëmmuñu rek dèj <laughs> ah waaye bu ma xiifoon bay bay waaja dee daal ah alaaj Ibrahima sàngam dee na te koor a ko rey diggante bi ngay bàyyi lekk bàyyi naan nit mënu ci dee laa yukallifullahu nafsan illaa wusaaha yàlla lu mu teg jàmm bi rek na ko dèjà <laughs> la de dëgg la de <laughs> waaye <laughs> la sa lox li ma gën a bañ nag nga wax ma loo la wax waaw d'accord na d'accord na ban heure jot une heure du yaa ngi ci koor gi dèjà waaw waaw tey kay euh, maa ngi góorgóorlu sëriñ léegi daal naa la defaral ñaan waaye nag sama diggante ak yow ne ko dëgg lal la ngay wax lépp na doon dëgg lu ko mooy daa raxmati ngay fanaane dèjà sëriñ waaw koor gi de laataa mi sëriñ yéene naa jilli naa wirde naa ni sànq daal xaw ma daal yàq na wala yàqut bala maa dugg ci la ma xamut en tout cas bi ma waxee léegi ma dem jàpp ji naan naa tuuti rek tuuti rek <laughs> damaa xamul daa yàq koor gi wala bu dee yàqu ko daal li ma la wax lépp dëgg la ci man o oh, xaaj Ibrahim Gaye ci sëriñam ba dakkal waxtaan wa joxoñ ko porte ba nekkoon a na génn këram DG ci la daal di gëlëm li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud li gën a fës ci euh, yéenekaay yi mbiram El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon. halaan ah, bikum démb ci alxamis ji benn soxna xamut doom wasinut ci hôpitalu Sénégal yi allah réew mi yéen kaay moo ñu ko xamal ndax saas faam ya fa ñoo geraw bañ na duñu rew lank na duñu rewle libération ne aji feebar yi démb sonn nañ senegal de a ah, fa ngay bëgg a dee te doo gis ko la faj l'observateur dëggal ko ko l'observateur na ko faala ci jox misaal yow seetal ca diwaanu tëngéej benn soxna su doon mas su doon mattu bëgg a xam doom ba mu yeggee ca hôpital ba sage-femme yi xool sax defuñ ko ko yaayi soxna se ne lii fa métti trop te ñaaw yéene kaay bi ne diwaanu mbuur Tamba Louga Diourbel Kolda tëngéej ña feebar ña nga woon ca diggante dund ak dee bés bi yéene na ko Sénégal ci boppam ñoo nekk ci dansé dee ndax kër docteur seen geraw fa garaaw ndeysaan démb fu nga gis soxna yoo xam ne fa ñu ñëw bëgg a nañ def rek ba dee ñu ne déetawaay tey ci àjjuma ji pharmacie yi fa ñuy amal na benn soxna fa yóbbu ci yoon ab médecin ginnaaw buñ alxamis ju ñuul kukku ak métit jaaxle moo am démb ci hôpital yi waa kër docteur fa ñoo bañ ne duñ liggéey sage-femme ya moom fañ doon jàppale seen mbokki sage-femme yañ tëj ca kaso ga ca diwaanu Louga moo tax ñu ne démb fa ñoo lànk da duñu rawle les si ko yéene kaay ne waaye sénégalais yi ci internet bi démb fa ñoo xas sage yi fa ñuñ leen a yedd fa ñoo ñaawlu liñ def yow seet seetal sénégalais yooyu fa ñuy laajte ne ndax sage-femme yi mérité na ñu leen di woyee sage-femme yow tiim sa moroomu jigéen mu war a wasin nga di ko seetaan naan faa nekk ci geraw sage-femme sénégal yi ñi geraw démb fa ñoo soxor fa ñoo xiñaan fa ñoo bon te fañ leen a war a dàq andi ñoo xam ne danañ xam yërmande le quotidien yéen a kaay ne réewum sénégal moom fi mu toll ni bopp lay doxee yëf yi fa juutu jafe-jafe yi du xaaj du jeex ci fànn yu bari nag mbir yu garaaw a fi am l'observateur na ma fàttali leen lu garaaw li ñu wax ne moom la ñaari député ya def Sall ak Biaye xam nga lan la procureur ba sàkk ñu tëj leen ñaari at atu kaso yoo xam ne ñetti weer ya la ñuy tëdd ba tax yéen a kaay bi ne ñi kay fañ leen a nar a ndax le 19 mai ci la dogalu atte bi di daanu léegi ko yéen a kaay ne ñetti weeru kaso yu ñuy tëdd loolu fo tuuti torop ndax ñaari député yi li ñu wax na lañu def fa garaaw ba jéggi dayoo leneen lu garaaw lu xam Sénégal mooy gasoil bu ñu def ci oto yi ak essence comme doom bu góor fi mu toll nii de fa manque ci réew mi lii yéen kaay moo ñu ko xamal wal fajir yéen a kaay ne gën a takkarnaase yéen a kaay bi ne man faay ragal askan wu fipp génn ci mbedd yi di yuuxu na wëyaay fa ñoo damm fa ñoo dee fa ñoo ëpp na moo fi nar a xam boo mooy tuut le soleil yéen a kaay na leen attention def leen dànk problème essence boobu ngeen di wax ak gasoil bi ba ci kérosène bi fi mu toll ni féete na boor presque état bi lijjanti na ko na xam na ñaari bato yu def ay tonne tonne yoo xam ne yegsi nañ jëwriñ ñu dénk wàllu pétrole bi kon nee na Sénégal na seen xel dal l'observateur dëggal ko ne kérosène ndox mi roppalaan jëfandikoo ngir naaw Sénégal am na ci loo xam ne a kaay moom di ñu xamal xeex bu métti jàppante yu dox jamono internet bii ñuy wax dakaar Actu yow seetal waa Dakar Actu yi fa ñoo porte plainte sëriñ bubu yóbbu ko ca yoon ndax fa la na waxal lu xamut ak yàq seen darak ba tax ñu yóbbu ko ci yoon ne sëriñ fa la na singili l'évidence yéen a kaay ne waaye seen plainte ba ñoom ba mu yegsi ci la sëriñ buub ëlbatiku dóor leen ñoom i tamit plainte teral yéen a kaay na ko citation directe la l'évidence na ko sëriñ buub kay yokku na sax ca yëf ya correspondant Dakar Actu ba nekk Kaolack citation directe la ko dóor ca procureur ba ne ndawal Dakar Actu wa nekk Kaolack ci lu ñaaw nekk mu bind ko ci kaw waa ànd nawle te fam ko teg nee na mooy fañoo ñoo xam ñoom ab contrat ak benn responsable politique bu nekk kaw lax mbay ngom ne bi fi raxma attaqué cœur de ville jaare ko ca ñoom fa ñu bëggoon tontu ñu bañal leen ko lépp ngir lu neex raxma ak yeneen mbir lépp nag dana leer ca kanam àttekat ba l'observateur moom di ñu xamal ne Macky Sall xandi na ak coppite ci police bu Sénégal diiwaan yu bëri commissaire ya toxal nañ leen turbine yéen kaay na ko dig am na njiit lu bees laaj bi nag mooy lan la Macky Sall nar ba tax mu andi coppite ci biir police bu la mu nar nag moom Macky Sall ci wote député yi wàññi na li mu député yi ci proportionnel liste nationale bi ci liste proportionnelle bi te loolu su ko defee mooy cohabitation bi ku jigi a yaakaar xam fay mujj takk suuf mu njaay siise ne loolu makki def faa ko ñaawlu le mandat yéen kaay ne makki tamit ma ngay di nangu maire opposition bi gaa yaa ngay transhumé rek lii yéen a kaay na ko maire bu yoof mbaa du fekki makki ah makki dalal na ko ca pale ba te moom waa yeewi la l' évidence yéen a kaay ne makki moom gisuma ku ko mën a arrêté ci loolu a askan wi sax ñoom it ñi ngi liggéey ci nangu ay responsable Macky Sall mooy ñi nga xam ne fa mer duñ leen investir ak ñi kontaanu ci doxalinu Macky boo moytu ca yeewi lañ jëm de leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Ablaye Wade waajal na wote député yi ak waa PDS ya defaru nañ ba jekk waaye fa wan gannaaw wàllu Sénégal info yi ne moo ñu ko xamal te moom bërki démb moo fi doon woote ne na kujje gi dajaloo source a ne Wade a a yi waajal watay député yi ba tax Malick Gakou jox na leen daluwaayu partem ba mu nar a nekk seen carte générale te lu ko jiitu wote locale yi Malick Gakou moo abaloon waaye yeewi fanweeri million ngir caution le quotidien yéene kaay di ñu xamal na lenn ci conseil ya nekk ca mairie bu ndakaaru fa ñoo ñaawlu li Barthélemy Diaz jël capitaine Touré ak Guy Marius Sagna ca cabinet ba ci seen réunion bu njëkk lañ ko wax la leen wax na moom Barthélemy Diaz mooy xeex moom naa ci xeex naa ba jël maire bu ndakaaru kon du ma tontu wax yu sew yooyu tàggat yaram Sadio jege na lool ngir nekk ballon d'or France football stade yéene kaay ñu ko xamal ndax ci wàllu kub yi Sadio moo raw Benzema te tubaab yu bari fi mu toll ni si yeeg ñëpp nangu nañu ren Sadio moo war a jël ballon d'or bi man ma jël laas yéen a kaay fekk fa waa mafia kacc-kacc yéen a kaay bi ne ñu xam doole leen ñi ci internet bi fañ leen di déglu mën nañoo dajale xaalis mën nañoo jàppale nit ay ponkal leen daal ci gàttal waaye nag hé yéen a kaay bi nee na mafia kacc-kacc bëri na fa ay looxóor bëri na fa ay saagawante nday ay weerante sutura ak ay tëkku te leneen lu baaxut te lool ci Sénégal lii yéen a kaay moo ñu ko xamal diwaanu maatam ak Rameru lu jege juróom benn téeméeri junne doomu aadama fi mu toll nii mënuñoo jox seen njaboot gi ndékki añ reer déedéet fa ñuy añ ñàkk reer ñàkk ndékki fa ñoo xiif mu waa ma ne diwaanu Matam ak Rameru yéen foofu rek ngeen dem waaye gis nga suñu waxante dëgg Sénégal ñi fi ñàkk bari nañ de fa ñoo xiif sonn dëkk bi dëgër li ci yéenikaay yi Choukran El Hadji Oumar foofee sax nag la ñu yem ci xibaar yi waaye nag xibaar yi day woy ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal ko moom Mouhamadou Khalili mi fare ci parti digitale bi jaajëfal ko du sekk kenn mi ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi yéen itam cant ak ngërëm ñeel na leen ci wàllu déglu gi ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti tawféex ak taysiir jaa ngeen jëfati le journal Ngoné Ndiaye Reine